touristes yi fi daan ñëw bu jëkk mais léegi gisatuñu benn touriste dañ romb di dem ay Lac Rose fu nekk la ñuy dem di dem ay sali mais léegi gis na village léegi daanaka am na ñoo xam ni xam ñu sax fi xam ñu sax fi village artisanal feebar bi kañ moom indi na gàllankoor bu bari si ñun parce que ni mu daan demee bu jëkk ñu am ay liggéey ak yooyu pratiquement ndiggante dëj yooyu yëpp fi mu ne nii dañ daan ñawlu kenn fi mu ne am na lu mu def si ñun am na lu mu tardal am na lu yàqale tamit feebar bi moom ñëpp la laal kuy liggéey ak ku liggéeyul defe naa ñëpp la laal bon bi mu ñëwee nag bon du ñu def lu dul sant yàlla daal comme ñu ngi wax daal yàlla boole ñu ci ñi toog di wax ñu ngi ciy sant yàlla mais ku nekk xam na ne feebar bi moom côté yëpp la laal waaw ñun moom xanaa masque yi sax ci fête bi moo ñu dimbali pour ñu mën ci génn. secteur artisan moom ci wàllu mbas mi doon na lu nga xamante doon na lu gën a tagga tembe parce que métti na trop. ngir taxawu artisan yi njiitu réew mi Macky Sall daal di taxawal benn fonds de résilience économique MEPA di jëwriñ gi boot artisan yi daal di ci am lu tolloog fanweeri milliards ak ñaar. waaw ñiy inscrire ci laa bokk quoi nit ñaa ngi ñëw ñu bari ñu ngi ñëw artisan yi di inscrire quoi ñu ngi pour nga bindu. il faut nga am carte artisan professionnel wala nga nekk ci association bu am ay këyit wala GIE bu am këyit waaw mais néanmoins lettre état bi xam ñepp amuñu carte mais nañu inscrire quand même waaw waaw mën na nga nek artisan rek inscrire muy góor ak jigen même soo nekku ci village bi waaw foo mënti nek ci dëkk bi rek ci département de Rufisque so soo ñëwee rek ñu inscrire nek nekk di métier artisan artisan moy kuy liggéey ak loxo waaw même jigen ñi par exemple ñi def transformation euh, nu mu tuuti produit céréalier si lañ bokk waaw jot nañ information bi bon am nañu fi ñëw di bindu toogaar bi ça fait 3 semaines loolu daal am na ñuy bind mais mais mais nit ñi daal ñi ngi bind. waaw toog di xaar. waaw am na bu ñu dig. waaye nag ba léegi jotaguñ ci. même am na ñun promettre woon ne leen fi mu ne nii cent cinquante mille avant kii bi. pour tabaski bi mais ba loolu léegi yëwu ko xaw ma nag lan moo ko bloqué. état am na projet yu mu fi indi mais projet yu mu fi indi PESAP bi ba léegi bi ñu joxee kit bi ba léegi xaalis bi duggagul. amoon ngeen kit. amoon nañ kit. Madaar la. ah gel gant ak masque loolu la ñu njëkk a jox premier temps nañu woon dinañ leen jox ku nekk cent cinquante mille ku nekk par Orange Money ba jusqu'à présent may waxee yow nii jotuñu cent cinquante mille bon PEJAB bi man jotuma ci que bien vrai que lu tax jotuma ci peut-être ci man la ndaxte euh, yiñ doon laaj man loolu laa amul woon moo tax kii ma ci binduwuma ci man sama bopp man maa binduwul bii moom macha allah bii moom nguur gi moom macha allah yombal na ko puisque bu nee ku am këyit ak ku amul këyit rek defe naa kon ñii bindu dina bëri puisque ci milieu artisan ñi amul këyit ñoo ëpp ñi am këyit bu ñu artisan moom loolu moom kiyam la defoom la puisque ñi am këyit bëriwuñ ci ñi amul këyit ñoo ëpp fuuf kon yaakaar naa ne bii paa moom ah li muy gis est-ce que dina ko dina ko mën a joxe parce que artisan yi làqu ñoo ëpp ñi feeñ. am na bu fi njëkkoon a jaar bu ñuy wax projet PESAP bi kooku aussi tamit yëgoon nañ fi ñu nga xam te ne defoon déposé woon nañ ci loolu mais booboog léegi wax dëgg yàlla tamit déggaguma ku ma ne jot naa ci ba ni yàlla dogalee budget bii ñu génneewaat pour artisan yi. 30 32 milliards yi. actuellement tamit yàlla dogal ñun li ñu sant muy suñu devoir mooy ñu ñëw ñu bindu ñun ñëpp kenn ku si nekk ñëw nga nga bindu bon li resté nag ñu ngi toog di xaaraat waaw parce nit moom nee la bala ngay kaas say droit yow defal sa devoir ba pare rek. ñii di artisan yi nag di wéy di dundee yaakaar naan suñu jotee ci koppar yooyu mbir yi dina tane ci waxtu wi nga xam ne seeni mbir daa taga témbe ak mbas mi di Covid 19. bu ñëwee dina am changement suñu ndax fi mu nekk nii fond la ñu soxla pour liggéey fond mooy liggéey. mais boo yoree benn xaalis bu ndaw liggéey ci benn affaire ñu jënd ko wala ñu leb ko fi mu ne nii xam nga bloqué nañ la mais boo amee fonds dina la permettre que nga ne nga liggéey leneen leneen leneen ki fayul du la tardé. nit boo koy dimbali da ngay gaaw ñun bu ñu dimbali woon dem nañ sa ñuy kër parce que di buuxante fii ak feebar bi gënaluñu. ñàkk a pexe rek mais mënuñu si am dara xaalis boo xam ne ba nga la see jot da ngay daw booy bëgg a dee te état la koy jox. te état da koy am ñu mu koy sous-traité balaa yëg si si yow. day comme koy sous-traité bala laa fay foog état fay ko. dañuy daw a daw bay bëgg a dee ba xaalis bi dañ siy suur te bu ñëwee dañ lay dagg parce que ñëw ñu fekk si artisan bi si boppam jox ko masque yi su traitant warul am si masque yi dañu war a ñëw si la place bi si milieu bi jox nit ki naka am liggéeyal fekkee bëgg nañu di dimbali mais nga dem jox ko koo xam ne du tailleur ah mu du ay tailleur fay leen sous-traité ko loolu mooy problème mu Sénégal. yaakaar yaakaar am na ci puisque nit ki bu ñëwee lim li mu la yow ci li mu la wax rek ngay mën a tënku kon moo tax yaakaar il faut mu am ci puisque nit ku ne bu ñëwee wax la toog télé wax wax chaque jour ñu ngi wax xam kon nga ne ah lii kat mën na am yaakaar mu ngi ci xam nga nañ ci def suñu yaakaar rek incha allah yàlla mottali ku si sa wërsëg daal yàlla nga ci jot te muy li gën si yow. waa ci côté artisanat moom surtout rawatina ngeen ni da ngeen nekk ci village boo dul am visiteur neew ma doo dem de mais dina metti parce que artiste bi wala artisan bi li muy liggéey daanaka nasaraan bi sax moo ko gën a jox valeur ka ñu mu nekkal comprendre nga parce que dafa am ay mbir yu bëri yoo xam ni ne artisan bi da ko soxla barabam war na jaar yoon war na am matériel yu jaar yoon en plus war nañ mën di am ay visiteurs li ñuy liggéey ñu mën a am ñu ngi koy jaay di ci faj suñu ay soxla appel bi ñuy lancé nag mooy bi ci njëkk surtout ministre bi ci jëm boppam ñun dañoo am yëg-yëgu mu ñëw fii ci village bi visité ko ñëw xool ni suñu village bi mel xam ne yàqu na daanu na te et puis na te am nañ possibilité am feneen place mais mënuñu dëkk Tëngéej di fi bàyyi li ñu am dem di jëmmal keneen ay ay mbiram duñ ko def métti na nag mais dañuy toog ñu xaar ko li ñuy wax nag président aussi tamit mooy lu mu ñu mën a jàppale na ko def te xam ni affaire bi dëgg la métti na ci ñëpp sunu village bi aussi tamit am nañ yëg-yëgu ñu jàppale ñu ci mu dox fi mu war a tegu ñu tegu fa ñu yokk palaas yi artisan yi nekk ci bit yi nekk seen kër yi amuñu fu ñu liggéeyee ñu dugg si ci barab bi toog am fu ñuy suturloo ñoom tamit